Fall ñu ngi lay ziar sunu xarit euh, Serigne Mountakha Bassirou euh, màggal gi mooy première euh, màggalam ci xilaafa gi ñu lay ñu la ci ziar di la ci jox sa wàccuwaay di la dalal ak jàmm di la wax ne bég nañ lool ci teewaay bi. jërëjëf man tam maa ngi bég ci seen liggéey di ñaan borom bi mu defal leen seen turu tele bi muyu borom nekk ma fatul bisiri busra lil muslimina jamian di bég tam di ñaan alxalifa ñu fekk fi ay yoon yoon mu toog fi toog bu yàgg léggéey liggéeyam bi nga xam ne moom la bëgg tàmbali te woo ci ñëpp muy liggéeyu wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami liggéey boo xam ne bii naal la bu ci université boo xam ne bii université ñu ngi fi woon bu fekkoon li tax ñu koy samp mu ngi ci université yi mën naa am duñ ko samp waaye liñ ci jublu ci samp ko nag dafa nekkul ci université yi te mooy jàngal nu jàngal nu sunu bopp jàngal ña fay jàng seen bopp jàngal ña fay jàng seenum réew bañ xam li yor lan la joxoñoo fi la université bi incha allah noo ko ñaal borom defal ko ci tawfiix defal ko ci mbégte te yaatal ko ba fa mu ko bëgg jëmale mu jëmale ko fa baa ma koy teg ci loxo loxo yoo teg ko ci loxo baa ñu àgg fañ jëm jërëjëf ah, di la ziar bu baax a baax di la wax sa teewaay ci maagal gi rafetlu nañ ko ah, ak it ah, nooy bi nga xamante ni dafa jungir liggéeyal Serigne Touba ak l'islam macha allah jërëjëf joxaane xanaa di sant di gërëm di ziar mbokk talibe yëpp di ñaan màggal gi nga xam ni moom la ñu jeexal bi dikki démb di def cérémonie officielle bi tey yàlla def mu doon bañ a doon suñu mujj màggal ñu def ko ay ati ati at ba doyal rek lépp di xéwal ak jàmm ak sutura yàlla nañ ko yàlla defal bu loolu wéyee ñu ngi ziar seen mun Muntaxa Bachir mi nga xam ne mooy xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te waaw di leen dalal ci nag di ñaan it seen télé Bichri TV bi nga xam ne moom ngeen taxawal war cee liggéeyal sëñ Touba yàlla dooleel ko waaw mu gën a bokk ci tele yi gën a am solo yu gën a am doole ci réew mi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal waaw jërëjëf jërëjëf. Euh, di ko wax fii ci seen micro Mafatihul Bichri bokk ci yi nga xamante ni jullit yi ak waa dund bi rawatin waa Amérique ñu ngi koy suivre bu baax a baax euh, sëñ Mountakha mu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi te euh, sas yi mu yëkkati sas wu am solo la ndax Cheikh El Khadim na dira anhu lépp mu ko tegoon ci xam-xam. mu daal di ñëw na ko ay maamam defoon ay waajurum def ko ay magam def ko mu gën koo yàkkal gën koo yaatal gën koo dëgëral dafa mel ni tey li Cheikh El Khadim bëggoon lépp mooy ñëpp dem yi moom ñëw na ni leen yéen ñëpp dem leen jàngi ndax mooy tax ak àdduna moo tax ak àlaxira kon li nga ci mooy ignorance mooy waral développement dëkk lépp xam-xam gën la ñoo lay gën a développé dix premières puissances du monde yi yëpp xam-xam a tax waaw ndax ku ne xam nañ golf bi recherche yi gën a bari ci àdduna fa lay jógee waaye bokkuñ ci dix yi waaw kon ña jiitu yëpp xam-xam a tax Amérique moo mujj judd li tax mu kawee mooy ñoom duñu ay conservateur dañuy seet les hommes qu'il faut mettre leen ci les places qu'il faut jël xam-xam teg ak expérience l'expérience fait la différence kon ñu yëg ni loolu la Cheikh tax a ñëw def dafa du université complexe la mu jàmmaa mooy complexe daa gën a yaatu université mooy loo lépp a ngi ci te darul baax génnu ci loolay complexe université ab pàcc la ci kon orientation yi war nañ ko mën di def foo xamante ni lu man ñetti junni lañ bëgg a tàmbalee ku tàmbalee ñetti junni nag léegi nga jëm téeméeri junni kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala te it euh, ci kër Cheikh El Khadim lii jafewu ci 37 milliards du dara ci Sëriñ Tuubaa wax naa ba tàyyi ni Sëriñ Tuubaa yëgul weer wu sori yëgul dee yëgul àdduna bu neex ak bu naqari li mu li li wér daal mooy li mu mu faju ndax yàlla defal na ko kon lii léegi mu faju balee nan faju kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu moom mii mu tàmbali ko ni ko bëggee àggale ko ni mu ko bëggee tàmbale yeneen ni mu ko bëggee àggale ko ni mu ko bëggee tam àndantuñu ko tegoog ñun ndax ko ne xam ne toppekat bi toppekat bu mag bi lañuy ñuy topp tey waaw taalibe bu mag bi tey mooy sëriñ ki kennal Seexul Xadiim boolu ko dara mboolem ku mu jaboote jiital la topp sa ginnaaw dimbali ñëpp yiir ñëpp yërëm ñëpp Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëpp dañ ko déggal ñëpp nangul ko xol yëpp ko nangul waaw ndax daa nangul ñëpp kamaate kem na ngay jëflante ak say kilifa noonu la sa njaboot di jëflante ak yow moo tax ñëpp bokk ko nangul moo tax kayam gii ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala lu mu ci bëgg a liggéeyal lislaam liggéey ci Cheikh Khadim defal ko ci ak ay taalibe sunu borom subhanahu wa taala defal ko xoolal Ila Touba bi moo tax premier pose bi pierre bi ci Cheikh Sidi Moutar te incha allahu rabbi noppi na loolu tamit lu am solo la ñu ji sant rek président de la république ndox yombu yëg nañu nag ñu koy critiquer waaye nañu xam ni Cheikh Khadim lu jëm ci moom ab Sénégal na ci teey ndax amuñu ko du Cheikh El Khadim ndax suñu diggante ak Dakar bu ci géej joxoon taalib yi lab ba jeex wala ñu fekk si ko kon boo jógee Dakar ñëw ba fi une heure trente de temps te mu saam waa duñu sant nag ko jiite. Macky Sall président Macky Sall merci waaw ñëpp ñu ngi la sant. wa sallallahu wa sallama ala hadi amin sayyidina wa walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu di siyaare kenn ci yenn sëñ Mori Ñang di taalibi sëriñ Saalihu moo ànd ak tawfiixi fekkeewaat bés bu tedd bi di bëggalu Touba tey di ci ndokkeel sëñ Muntaxa ak ummatu rasulillahi alayhi salaam gépp ngir sëriñ Touba day njëriñu ku yàlla bind li nga xam nag de mooy tomb bi sëñ bi jiital alxuraan a ko jiital yàlla day leer bu tàbbi ci leer nuur ala nuur muhammadu rasulullah di nuurul alamin li nga xam ne moo am solo ci doomu aadama di leer mooy xam-xam xam-xam moo jiitu ngëm yàlla xam-xam mooy dëgëral ngëm yàlla ngir laata ngay dem bay choisir da nga xam mooy gëm yàlla doo ko choisir doo koy jaamoo nooy ni yàlla bëggee nga di ko jaamoom kon du nekkee ne sëñ bi dikk na feddiliwaat tomb yooyu Cheikhul Khadim digle mooy xam-xam mooy lan mu ne leer la gu lay gindi pour nga jubóog sa borom doo amee xam-xam te juyóog sa borom amoo xam-xam loolu xam-xam la kon yal nañu yàlla may tawfiix yu am xam-xam li jaamu yàlla ca nam ko buggee tey kattan yàlla ak yërmandeem nangul ñu ko tañ sey ci sëñ Tuubaa nam sey ci rasulillahi sallallahu alayhi